dem ñu doon jàng yàlla ñu jàngal lu ñu may si ay wërsëg te nañ ko jëriñoo nañ ko jëriñoo walla moo ñu may yére yoo xam ne moom la ñuy sol ci suñu waxtu liggéey may ñu yoo xam ne yére toilette la waxtu yu bëggee toilette may ñu itam ne jumaa yàngoo bu ngeen dem ci jumaa ya na ngeen solu ya na solu fexe ba ku nekk na jéem a sol tubéyam ak mu bamum ci teg ak lu mu teg ci kaw boppam rek yooyu yëpp yàlla wax na ne moo ñu ko may ba pare nag di ñu laaj xul man na ko xaraamal na nag ziinata laay taari yàlla yi mu leen may taari yàlla yooyu nga xam ne allati taar yi nga xam ne axraja génn na ko li ibaad yi ay jaamam ci ay colaay wa tayibaat ak yu neex ñu la de wërsëg yi nga xam ne nag yàllaa leen ko may muy wërsëgu colaay ak wërsëgu lekk yu neex yi nekk ci àddina bi ak naan yu neex yi kan moo ko xaramalu ci seen kaw xul <clears throat> waxal ne hiya moom di lazina ay nekk la ñeel ñaa ña amanu gëm yàlla fi xayaati ci dund ko dunya àddina de war yooyu tey yooyu yàlla jullit ñi ñoo tax mu ne mu bind ko jullit ñee ko moom seen alal la seen yëf la ñoom jullit ñi ñoo ko moom fii ci àddina waaye terewul nag am na ñoo xam ne bokkuñ ci ñoom di ko xëccoo ñoom ba ëpp na ba tax sax ñu ëpp na leen ci waaye wërsëg loolu lépp yàlla indi ci àddina jullit ñi tax ñu indi ko fi rek xaalisatun aji jagoo la mu nag yow ma xiyaamati ci penc yàlla ñeel jullit ñi de yéefar yi ñu ngi xëccoog jullit ñi wërsëg yi àddina fii ci àddina ëppale nañ leen ci sax waaye nag ëllëg ci àllaaxira jullit ñi rek ñooy jagoo wërsëg woowu nga xam ne yàlla bind na ko pour ñoom benn yéefar du ci am ceeb su fekkoon ne benn yéefar mën na am ceeb mën naa am buuxu ndox sax ci àllaaxira du ko mën a am buux de yow man xiyaamat ci pencim yàlla kazalika kam biral gii ñu biral mbir ñu leen nettali nu fassilu lañu digal laayaat yi kawteef yàlla yi dafa min ñeel aw ñu jaalamoon na de noonu la yàlla bind am ñeel aw ñu jaalamoon na ñooñu danañu xalaat de waaye nag pour ñan la ñi nga xam ne am nañ xalaat yu ñu mën a déggee am nañ xel yu ñu mën a déggee waaye am na ci nit ñi ñoo xam ne wax ak ñoom daanaka da wax ak aw rek di ngay wax yëpp duñ ko dégg wax a wax a wax wax ba sonn ñaan ha qul waxal ne innama xarama naka xaraamal na mu li yàlla xaraamal nag mooy lii loolu leen yàlla may ne leen man yàlla maa leen ko may yàlla mu ne xamut kan moo ko war a xaraamal ci yéen kenn warta xaraamal wala kenn war sa daganal yàlla rek moo war a xaraamal yàlla moo war a daganalal su ko defee yàlla wax na ne may nañu lépp lu bind ci ay ñamaki ay naan ñun yàlla mu ne may naa leen ko yàlla nag jikkoom ak amam dëppoo na ak loolu jikkoom mooy ne tabe la ah, jikkoom mooy ne ku ku tabe la man-manam itam mooy ne am lum am ku am lu mu tabee la de am na lu mu ta am jikkoom mooy ne dafa am ah, jikkoom itam mooy ne dafa tabe bon nag koo xam ne sa ñaari jikko yooyu yëpp mooy am naa lu ma maye am naa loo ah, te am am naa te tabe naa mën naa maye ñu ne bon kooku alalam dafa dagan ñeel nit ñëpp bon bon ñi nga xam ne nag ñu ngi daganal ñu ngi araamal fu ñu dëgëral seen daganal googu ak fu ñu dëgëral seen ak fu mu tëral seen ñàkk a daganal googu fu ñu ko tëral amuñ tëral amuñ tëruwaay bu ñu ko tëral lu dul nag li nga xam ne mooy indi araam ak mooy indi dagan loolu ci yàlla lañ koy dégloo mu wax ñu ko yàlla moo ñu wàcceel sharia boo xam ne danañ wax ne li lii yëpp nag mayoon naa leen ko waaye lii laa leen daganal ngeen lekk lii yëpp mayoon naa leen ko ngeen naan waaye lii yaa leen daganal ngeen naan su ko defee sharia la ñuy déglu foofa mooy xaraama mooy daganal waaye kenn nit amut xàqi daganal kenn nit amut xàqi xaraamal de mu ne waaye nag loolu bidéo boobu nga xam ne yàlla nga koy bidal ñeel ko nit ñi mu ne borom kër yi rek ñoo koy dégg rek loolu waxal ne innama xarama naka xaraamal na yàlla nga lay waxal nag li nga xam ne moom moom la xaraamal ak alfawaxisha jëf ju ñaaw jëf ju ñaaw ak bàkkaar jëf ju ñaaw yoo xam ne àgg na ba ci bàkkaar mu ne loolu moom la yàlla aaye bu eh, eh, eh, demee ni ki bokkaale yàlla bàkkaar bu rëy la ak yàlla itam bàkkaar bu rëy la ma zahara la feeñ ni naa ci moom wa ma batana ak la nëbb na mu de jëf ju ñaaw daal moom nu mën ci rek na ko na nga ko na nga ko bàyyi jëf joo xam ne àgg na ba alquran mel la ko ni jëf ju ñaaw la ba pare teg ci ay teg ci ay atte mu ne jëf yéen jëf ñaaw la de gannaaw alxuraan wax ne ñi ñaaw ci wax ñaaw na rek waaye teg ci ay atte nag atte yi atte yi jëteen dóor la ñu jam la ay doj ba nga dee loolu euh, bor àgg na ci ñaawaay dara boo xam ne jàmm nit watanu ko ko de maa zahara la feeñ minhaa ci moom wa maa batana bu ne mu wal isma mooy yàlla yàlla itam araamal na ci yéen ngeen di mooy yàlla de wal bàyyi ak deew ci kaw nit ñi di leen tooñ di nangu seen alal dara di xaq ci doxut ci doxut dëgg ci kaw to ci kaw ay tooñ de mu ne yooyu yëpp moom la yàlla araamal seen diggante bu leen ko def de lool tushriku ak bu ngeen bokkaale ak billaahi ci yàlla maa lam yunazil loolu moo solut bii ci moom sultaanul awlay ak itam ngeen itam yàlla bokkaale yàlla di eh, leen di samp di ko teg ci te yàlla naan na kooku moo yàlla te yàlla leen ko wàccee leen benn xam-xam seen bakkani bopp rek ngeen di ngeen di topp waaye amu leen ci ngeen di lay li ngeen di jaamu naan ay xërëm la xataa sax xërëm yooyu ngeen di eh, samp di leen jaamu dëgg-dëgg yéen jaamu leen leen ñoom seen bakkan rek ngeen di jaamu de ndax sa bakkan ngay topp rek di la sa bakkan wax nga def ko waaye jaamu woo xërëm de ndax boo demee këram bi doon wax ne wallaahi maa kaana iyyaanaa ya'buduun ñun ñoom daaw seen bopp rek dañ fi nekk ren de ah woon ci suuf bu ngeen bokkaale ci billaahi ci yàlla maanaam bi nazzil rasul bi ci moom ci eh, sultaanul awliyaa indil yàlla bokkaale ne ko kii yàlla la ñu yow waan taqul bu ngeen waxal allaahi wala yàlla maa laa ta'lamuun loolu xam te ko ci xaraamal ak daganal de di wax ak yàlla nag loo xam ne yéen xamu leen ci dara wax rek moo gën a moo wax wax ju rek ngeen di wax waaye li ngeen di wax xamu leen ci dara ndax yàlla wax loowu leen ko wala kulli ummatin aji nekk la ñeel wépp xeet ajalun ab dahal boo xam ne bu saagee mu jeexal de ko ku yàlla bind rek bind na ko ab dahal fii ci àddina la fii nekk muy nit ñi muy xeet yi muy réew ku ci nekk rek yàlla bindal na la diwal boo xam ne

dara bu ñu daa rey de ak lu mën ci métti ak lu mën di jafe-jafe boo accès ci dee bi nga xam ne yàlla dexal lee boo si accès dee kenn mënu daa rey si àggee itam kenn mënu daa dekkal de kenn mënu daa teree dee boo ci ay science yi ñuy tuddee seen bopp ay scientifique nga xam ne musiba bu xew ci àddina bi si ñoom la bàyyeekoo ñu ngi jéem wax na nit ku dee mën nañ koo dekkal ñu ngi jéem def ay pexe yu nekk di di di seet ndax nit mën nañ koo dekkal bu dee walla boog nit mën nañoo yokk mën nañoo yokk dundam yooyu boo demee ñu ngi ciy gëstu di def ay lépp loo xam ne mën nañ ko ci ay pexe ak ay ay xam-xam ñu ngi di gëstu loolu bu ko defee nag yàlla nag moom dafay jëy jaamam yàlla mën naa jëy jaamam am na benn waaye bu feebaroon ci euh, ci weewi ci yëri tubaab yi ci yëri xeefar yi feebar feebar feebar bañ ne dee na yónni ko ci docteur docteur seet seet seet yëngal yëngal yëngal yëngal def li mu war a def yëpp ba waa ji tisooli ñu ne dekki na deewaat na waaye dekki na ba mu ko defee ñu daal di jël yóbbu kër ga gannaaw ga mu deewaat ñu indiwaat ne dee na ñu indiwaat mu nekk ca di liggéey di faj di liggéey di faj ba wàjjee dekkiwaat mu daal di ñu daal di dem feebar bi daanewaat ko ñu indiwaat mu jéggi ñëwaat mu indiwaat mu ne dee na mu faja faja faja faja ba ba nga xam ne jóg na nokki na mu ngi waxtaan ak nit ñi ba ko defee fi ñu toog ak ñu ñëwoon fekkee si bés beeg yépp mel ni genn xaacu moo wàccee si asamaan rek yeexal leen takk takk kenn gisatu leen dañoo tëb rek yeex de ndax ba tey yàlla mu ngi lim namut mu am ci àddinaam bi kenn mënu ko see amal lu dul moom lum namm mu am am ci àdduna bi itam dara dara mënu ko tere am de moom la yàlla di wax ne ngeen di waxal yàlla nag loo xam ne amu leen ci lay andil yàlla bokkaale te loolu ngeen di wax yëpp dara nekku ci yaa bani aadama e yéen doomu aadama inna yatiyannakum dem dikkal na leen rusulun ay yónent sunu yi nga xam ne ñoo leen yónni yéen doomu aadama yi yonent yi nga xam ne man yàlla maa leen yónni ñu ñëw si yéen di leen jottali wax yàlla dëggal leen leen de yaqussul minkum rasulan ay yonent minkum ñu tukkee si yéen gis nga ba tey de yónniwut malaaka yónniwut jinne waaye nit ñi ñun la yónni si ñun de ndax ñu mën a ndax ñu mën a euh, dëkko dëkkoo moom ndax ñu mën koo nangul ne nii rek mu ne ya yaqusuuna danañu nettali aleykum ci yéen ayaati ay kawteef sama ay ay ay ay ay ay ay kawteef sama faman ittaqaa ku wattu na mu bokkaale ak yàlla wa aslaha tam xeere na ci jëfam falaa xafun déet tiit alayhim war ci ñoom wala am déet ñoom yaxzanuuna dafa yàq loolu na lëg ci yàlla xere de yonent yi ñëw nañ ya andi tam ko war a jaamoo su ko defee nag ku gëm ci yéen loolu nga xam ne yonent yi indi nañ ko nangu nga ko yaa ngi koy jëfee mu ne kooku du am lu muy tiit ci àddina du xam ëllëg itam ci àllaaxira la muy tiit yëpp ci àddina ci àllaaxira mooy ah, bu ko defee nag su fekkee loolu am na doomu aadama mooy kii ngeen xam rek mooy ku dëgër bopp kii ngeen xam rek ak ak li bëgg rek kenn mënu ko caa jëlee lu dul rek yàlla ñëw ak ndogalam waaye doomu aadama bu réeree moo sànkul boppam réer ndax gis na lu ko jubal ndax gis na lu ko jubal luwaa yi fi nekk ak luwaa yi fi tëdd ak policier yeeg gendarmerie yeeg yépp ngir doomu aadama ci yoonu njub rek la pour doomu aadama jub nekk nit ku euh, nit nit ku dëggu ci li muy def ak li muy taxawee gannaaw nag ñoom ci seen nguuri àddina yi rek <coughs> ñoo bëgg loolu ci nit ñi nga xam ne amul pay bu ñu koy pay bu ñu koy jox ak gannaaw loolu naka noonu nag koo xam ne moo mooy moom moom moom say alkaati moom mooy moom moom say gendarmerie moom moom sa état sax moom moom yëpp ba pare wax la ne nii laa ko bëggee defee ko nii nga ne ah ah man nii laa koy defee ndax moom amul alkaati bu bu taxaw nga di ko gis waaye alkaati da taxaw de mu ne mu ne nag su fekkee topp ngeen yàlla ni leen ko yàlla toppaloo falaa xawfun déet ragal alayhim ci ñoom wala am déet na ñas dama na a jàqal ak ci àllaxira de wala ñu ne waaye ñaaña kaga bu wet dañu daayaati naa ci alquran sunu wastakbaru tey réyru an ha wélis ko bëgguñ ko ulaayika ñoo ñu yi ñooy waroon safara de hum ñoom xaaliduuna way bee lañu ci sol sa safara de ñi nga xam ne nag safara mooy ñii yàlla wax wax ci laay yi de ñi nga xam ne weddi nañ réeru nañ rëy ba pare weddi ñaare foo fekk weddi kat rek dafay rëy ndax boo demee iblis lu ko indil ja eh, toroxtaani yooyu yëpp mooy ana xayrun minhu man maa ko gën loolu rëy rek ci kaw rëy rek la ko tabaxal waaye tabaxu ko ci kaw benn expérience boo xam ne bu wër la bu mën a joxee tegtal ni lii tax ma ne maa ko gën de lu mu wax xalaat tamit min naari waxalak taw min tey nin moom xamul suuf ak suuf ak safara xamul bu ci gën de yàlla mi bind suuf ak safara moo xam ñoom ñaar bu ci gën waaye moom xamu ko de su ko defee nag lay woowu nga xam ne Idrissa ko layoon ne moom ci safara la bàyyee bon moom leer la bon moom moo gën aadama mi nga xam ne ci suuf la bàyyee su ko defee Iblis moo njëkk a taxaw ci ci mbindeef yi yàlla yëpp taxawaayu euh, révolution moo nekk taxaw taxawaayu contestataire moo nekk taxaw taxawaay boobu de moo nekk taxaw wax yàlla déedéet maa bañ nanguwuma ndax li nga ma teg du li nga ma teg du yoon kii maa ko gën gone gone tey jii rek nekk fi tey jii rek nga ñëw bëgg ko gënal ci sama kaw loolu maa bañ du ma ko nangu de ndax man leer laa boo ko defee boo demee boo demee eh, eh, eh, yàqkati àddina bi ci jamono bi yëpp ñu leen di tuddee ñoom ñooy borom lumière ñoom ñooy gis ñoo gis formation jotee man waaye ma ngi jotee ak euh, démocratie ñu ne ñooy borom leer ñooy laïcité yi ñu ne ñooy borom leer ak euh, nga xam ne ñoo tëdd droit de l'homme ñu ne ñooy borom leer su ko defee leer boobu yëpp boo demee seen leer ak iblis gu njëkk nga waxoon ne mooy leer rek ci lañ koy tibbee de waaye tibbeewuñ ko ci li nga xam ne moom la yàlla tëral ne mooy leer yàlla mooy borom leer te mooy maya leer allahu nuur moom wan lam yaj'alillaahu lahu nuuran സമാജഹു മിന്നൂരും കുയാളുടെ റഫറുടെ കെൻ മുന്നിലാലേറവ് കെൻ മുന്നിലാലേറവരുടെ മുനെ ആ സമം അസമു ലിപ്കൻ ദിഗണത്തോൺ സമം അസമു ലിപ്കൻ ദിഗണ സൗരായ കുഞ്ഞുക സാബു നേവ്യ വോൻ സഫറ ഖാ ഹും ഖാലിദുൻ വൈ ബില്ലി ഫിയാ കെസോസ് സഫറ ദേ ñun ñëpp yàlla melaloon na mustakbiruna yi ak ñu yëgg weddi téere yàlla yi weddi yonent yi yàlla mu ne ñoom ñëpp safara lañ jëm képp koo xam ne dee nga te yaa ngi yee ci kaw ñàkk gëm yàlla ñàkk gëm yonent yi kooku safara nga jëm ak lu mën a rafetal ñi ngi rafetalal ci àddina bi nag boo demee rafetal kat yeeg ñi ngi rafetal di wax naan xéefar mooy kan jullit mooy kan ñu ngi jéem a xataa jullit ñi sax ñu ngi leen di jéem a génne ci seen diine ci diina juwét yi nga xam ne ci lañ nekk ngir bëgg a wane ne diine yëpp benn la diine boo nekk rek baax na ndax diine bi li tax nga nekk ci mooy dangaa bëgg a jaamu yàlla moo tax nga nekk ci waaye boo bëggee jaamu yàlla jàngoon nañ fii barki démb ne doomu aadama mënta jëflanteeg yàlla yàlla moo mën a jëflanteeg moom de ndax lan yàlla moom nga xam ne moo la bind bind la asamaan su àddina sooy sii ba pare ak moom yàlla ci boppam ci jëmmam ak itam yow doomu aadama yi foo jëlee xel foo jëlee xel moo mën a comprendre leen loolu dara mënoo ko fexe ba comprendre ko mënoo fexe ba comprendre lan mooy yàlla te sa xel nga sukkandiku mënta am mënoo fexe fexe fexe ba àddina bi yépp ñu tëddee biddiw yi ci kaw asamaan seeg galaxie yeeg seen yoon yi ñuy jaar ak yépp nga xam ne nin leeree ci ñun ci kaw suuf si ñu xam ne tali bii mooy yóbbu kaw la boo demee itam galaxie yi nekk ci kaw asamaan te ay milliards yu milliards yi milliards la boo demee ñoom ñëpp kenn ku nekk fa la yàlla wax ne fa ngay jaar doo ko wàcc suñ ko wàccee rek nga gis suñ naan jàpp nañu weer rek nanga ma nanga jàpp nañu weer defuñ ko moo juum rek jaar fu mu jaar su ko defee loolu mooy li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy dëgg bu ko yónnante gisaan nag dana sant nit ja nañ balu ji yàlla nañ jaamu yàlla ndax kéemtaan la ci kéemtaan yàlla yi ba léegi loolu nga xam ne moom lañ suñ diine moom la ñuy suñ yónnante sontoon buñ gisee lu mel noonu nañ dem torox lu yàlla ñaan yàlla ndax lii benn mandarga rek benn mandargal ci mandarga yàlla yi yu lay won ne yàlla borom kàttan la borom doole la te waxtu wu nekk na ko feeñal fu ko neex bon bu gisee mu dal sa moroom njaam rek dabal ñaan yàlla eh, comme ni ko gaa ñi waxee de waaye nag fi mu ne boo demee ñu ngi koy oyofalal oyofalal oyofal ba nga xam ne du dara dara dara du dara weer moo jaar fu mu wartoon a jaar rek jant bi lënd jant wala jant bi moo jaar fu mu ko jaar rek weer wi muur ko dëgg la kenn weddiwu ko waaye nag lañ ñu jàngaloon tamit bu ngeen gisee lu mel noonu def leen ko te ay mag dëgg yonent ak ñu mel ni moom jàngal ñu ko loolu itam dara gënu ko wér de yàq suuna danañu ne te daal comme ci yenn ayaat yi ay kawte sama sama ñu takkaat ku ragal na moo yàlla ba utulu ko bokkaale waa sax tam keneen ak jëfam فلا خوف بيضاق عليهم ورلم ولا هم بهم يحزنون يبين يقل تعالى خير والذين وعين كذبوا يدني الله كذبوا يدني بآياتنا تعالى القرآن سنو واستكبروا تنوريد عنها ورزقو بربنوكو فأولئك من يرقاي أصحاب النار يورن سفر يلا وحنا نيو سفر لنجم هم يوم خالدون ويبير لنيو تسوس سفر سفر لنجم يبير فمن أظلموا déet kenn di gën a tooñ li man iftaraa ca kat yut na mu kasiban ay na war allah waral yàlla di ko wutal ay bokkaale di wax naan yàlla am na bo yàlla am yàlla am na bokkaale yàlla am na doom doomam yi doom yu jigéen lañ loolu lépp ñi di ko wax te xamuñ ci dara dara dara dara ndax euh, fekkewuñ fekkewuñ yàlla nee na démb ba may bind dimbali ko ma kenn maa kuntu muttaxidan mu dindi na adudan yi nga xam ne ay réeralkat nit ñi ay réeralkat yi nit ñi yàlla mu ne ñooñu bu leen dimbali ko su yàlla yàlla dimbali ko kenn xanaa dimbale rek la fi nekk waaye nag ñi nga xam ne ñooy jottali ay yonentam du teg ci loxo ñoo xam ne dañuy réer di da koy teg ci loxo ñoo xam ne set nañ leer nañ ba pare itam ñu mën koo jottali ci set googu ci ak ci leer googu rek moo tax ay yonentam daf leen gi tànn. dafa leen di tànn bu baax a baax boo demee nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi ordinaire bi rek sama doom du ko may jur ndax bokkuñu ah du sama nawle gannaaw yow nit ki rek yaay ut nawle boo jox boo def sa secret astama yàlla itam yàlla itam ay secretam daf koy utal nawle yoo xam ne nawle la de yoo xam ne àtt nañ ko de wa laqad aataynaa ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi aalimin loolu la wax wa naa bihi aalimin ba leen koo jox suñu ngóot yooyu xamoon nañ moom xam nañ kan mooy yonent yàlla Ibrahima ne attan nañ ko de naka noonu yàlla itam fa muy teg ay mbóotam itam dana nekk teguwaay boo xam ne ku ko dégg rek sa xol dana dal da nga da nga da nga da nga da nga óolu de da nga nangu ne foofu ko yàlla yàlla def foofu ma baax na ba man nangu naa yu bëri nangu nañ nangul nañ nañ seen yonent yi rek ndax na gis nañ ne kii Di yalla jaarale ci mom elloo nako ci ay jikkoom elloo nako ci yermandem elloo nako ci item elloo nako ci lepp lo xamne nit soxla nako pour jëriñoon mom nitam yoy yeb bo demé dem ko fekk ci mom motax yalla yàlla ci yalla wax ne ana arrahmatu almuhdatu man maay yërmande yi nga xamne man la len yalla jox adiya man adiya yalla ci yent yermane la ci yéen rek bon na ko xamne lolu moy sa liggéey bon doomu aadama yëpp danañ la danañ dana doomu aadama yi ku yàlla na ma yubal dana xam ne yow ya rawukaay nga de waaye doo koo xam ne dangay ngay nit da ngay suufee nit da ngay toroxal nit bu yow de ñi ñi ñi nekkal yàlla yëkk itam noonu lañ mel boo demee nit ñëpp lañ bonk nañ bo lañ lañ lañ lañ lañ bonk lañ bokk fo fonk ñëpp lañ yemale de amut kii moo nekk ci kaw kii loolu amut ci ñoom de aw kadhalika faman azlamu min mimman iftara kadhiban ala Allahi ay a aw kadhaba bi ayaatihi ci alxuraanam ulaa'ika ñooñu la gaa yi yanaaluhum dana jot leen nasiibum seen minal kitaabi mu tukkee ci téere lawhil mahfuus ñooñu la xam ne wedd nañ yonent wedd nañ alxuraan wedd nañ yonent yi seen cër ci mbugal dana dañ ko jot de yàlla ko seen cër seen cër ci mbugal dañ ko jot mu tukkee ci lawhil mahfuus ndax lu nekk rek yàlla saxal na ko ca lawhul mahfuus na ne ñu ngi ko fa bind de kenn ku nekk li sa sa nekkin ci àddina yépp man ca lawhul mahfuus yàlla bind na ko yàlla bind na ko bind na ko ca lawhul mahfuus de ñi nga xam ne itam dañuy weddi yàlla nar a dem safara ñoom itam yàlla bind na ci lawhul mahfuus ca xam-xamam bu jiitu ba ne ñooñu safara lañ jëm de bu ko defee nag ñooñu dañuy nekk di weddi yàlla rek aga mokke yonent yi di wéddi yàlla di mokkee yonent yi loolu lañu loolu lañ loolu lañ nekkee waaye loolu su fekkoon ne xam nañ fi mu leen di yóbbu ci mbugal duñ ko def de waaye itam mënuñ koo ñàkk def ndax noonu la leen yàlla bindee yàlla bind na mbooloo pour safara bind na mbooloo pour aljanna ñun bindal pour safara ñeer dana leen yombal yoon woo xam ne daf leen di yóbbu safara dana leen ko yombalal dana leen ci dëgëral dana leen ci won loo xam ne waxtu wu nekk dañ koy gën a sopp ñuy soppee seen bopp ndax itam yaa tànn loolu nekk nga ci te yàlla maanu la donc lépp loo xam ne yaa ngi ko soxla ci wëkk boobu ala foo ko yàlla dana ko wax ba mat sëkkale bu nekk mën nga koo oote ay na maa kuntum am na lu ngeen nekkoon taabu lu di jaamu ko de ma ah xataa yaa jaati ma dikkale leen rusulu naa yónni sunu ñu ki malaaka yi yatawaffoonahum di rey leen xaalu ñu wax leen ñoom malaaka yi wax ko réefar ya ay na maa kuntum ana la nekk ngeen taabu ñu leen jaamu ko min dunillahi ñëwul yàlla di ah tadduuna di jaamu ko min dunillahi si ñëwul yàlla de ana la ngeen nekkoon di jaamu te taxa sampoon ko ñooy yàlla ngeen leen di jaamu anañu anañu tey ñun de ñëw nañ ak rey si leen da ngeen di dee ana seen yàlla yooyu nag ndax mu ñoo dimbale leen su fekkee naa yàlla lañ xaalu ñu wax ñoom xeefa ya dallu xaalu ñu wax ne bi xaalu ñu wax ci waxtu boobu ne dallu sànq nañu seen yàlla yooyu fàddu nañ na dallu fàddu nañu am naa woon suñu suñu yàlla yooyu réer nañ ñu gisatuñu leen ñu ne wax ji ñu ngi ko wax fii ci àddina waxtu wa nga xam ne ni ngay dee ba dara dara dara xam nañ ne at biñ jeex a tàkk natt bu mujj boobu ñuy noppi rek te métti loolu la si ci àddina bu ko defee ñu waxtu yooyu la malaaka di leen wax wax ni ñu ne déedéet malaaka yi ñu ko ci àllaaxira ba dekki ba nekk ci ba nekk ci mbugal ak la malaaka laaj li ñu laaj lu nekk ñu leen koy laaj mu ne bu boobaa la leen rakka yi ñu yor doo la wax lii di leen wax na nag ngeen ne am seen jaam yi ngeen doon jaamu lu tax yëwul rammu su ko defee ñoom xeefa seen tontu boobu mooy lan mooy ne ñu dégg suñ leen suñ yàlla yi lay fàgg nañ ñu gisatuñ leen ba shahidu ñu seede ala anfusihim waral bopp seen annahum naka ñoom kaanu nekkoon nañu kaafiriin ñu way génn topp yàlla de di ay yéefar de ñu leen di nag ca saasa ne ñoom ay yéefar lañu woon de dañ ne ñoom ay yéefar la dal di dal loolu ci saa si nga xam ne am na ay taxawaay yoo xam ne dañuy wax ne daa ñoom daawuñ jaamu xërëm daawuñ daawuñ jaamu lu dul yàlla am nañ fu waxee loolu bon nag suñu waxee fii tey ne dañoo dañuy wax ne nag mu ne ñu ñoom ay xéefar la ñu dañoo weddiwoon yàlla te alquran amut fi eh, fiihante li mu wax yëpp benn la waaye mu nekk nag ci alquran itam ak nit ak jamono dafay dafay dafay dox ànd ak nit ñi jamono dina ñëw mel nii nga waxee nii jamono ñëw mel na neen nga waxee neneen moo xam ne dafa mel ni dafa umteeg la nga waxoon la rek nga waxoon noonu jamono jooja moo ko moomoon jeex na jamono ji weesu na jeex na beneen jamono ñëw na nga indi beneen wax boo ne dafa mel ni dafa dàqo waaye dàqo de benn wax bi rek la jamono bii bii la laaj nga waxee nii jamono ba lépp lépp laaj ne la nag su fekkee yow jàngalekat la xam nga méthode pédagogique bu baax a baax pour jàngale boo nekkee classe di jàngale da xam. ñi nga xam ne ñoom bay jàngal sa kattan ci ñoom lan la ak ñoom itam seen kattan ngir jël ci ñëw lan la su ko defee ñoom ñëpp doo leen emale ñi nga xam ne ñoom ngay ñoom ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am na cër boo xam ne dana dana dana dana jëriñoo capacité yi nga xam ne yàlla def na ko seen diggante rek tey da nga jàngalee nii ëllëg nga jàngalee nii gannaaw ëllëg nga jàngalee nii loolu yëpp ngir jàngal addina bi jàngalaa leen addina bi jàngalaare gan li nga xam ne nit ci téye pour ngeen jàngal ko de waaye moo amul pédagogie rek élève bi nit nekk classe bi ngeen joxam dara ci li ko wax de wa shahid bu ñu seede ala anfusihim walay bopp seen annahum naka ñoom kànn nekkoon nañu kaafiriin di wéy di yàlla wax yàlla ne udxulu xaraf leen yéen ñii fii ci aw xeet xat-xatat boobu daa waxoon nañu de yéen xéefar yi tey yii ànd leen nag dugg leen ci xéefar yi nga xam ne xéefar yi nit ñi nga xam ne réeroon nañ nekk rek duggal yi yéen ñëpp na ngeen dem safara dara yooyu bu leen safara de mboolem yéefar mu yéefar ak nit mu yéefar ak jinne sa ci yàlla mooy ne safara rek la ba ak yéefaru tey suba bi nar a ñëw ñoom ñëpp dañ danañ danañ danañ jegeante jegeante ba ñoom ñëpp ñu kuréel yàlla ne ak sa safara nga nekk ñoom aw xeet safara bépp wax na ne jël nañ aw xeet dugal safara laagat bi rëbbul uxtahaa moromam ma de mbokkam ma de xeet ñu jël sànni ko ci safara li muy def dafay ñaan yàlla yow yàlla yàlla nga rëbbul xeet bi nga xam ne mooma yombalal ba dugal ma safara de xeet bi nga xam ne mooma kéefërloo yow yàlla man lay ñaan yàlla nag pour mbugal mbugal moo fi mu mbugal dal ñaan yàlla ko yàlla su la yërmande de xabtaay ba dara ko bañ jotante fii ah ci safara ko day am nit ñi ñu doole boo demee ba nga xam ne rek xéefal yëpp xéefal yëpp dañu leen ci biir safara ñoom kenn nag ñu ngay ñu ngay ñu ngay ñu ngay mbugalante xaaral wax uxraahum ba njëkk seen ñu toppoon ñu waaw ñu toppoon ci ñoom li ulaahum xaala wax uxraahum way way toppee li ulaahum ñaar ñu topp na ñi nga xam ne ñoom la ñoo doon sang yi nga xam ne ñoom la nit ñi daan topp lu ñi nga xam ne ñoom la jóg safara di ñaan yàlla yan na yàlla rëbb ñooñu naan rabbanaa yow doon sunu ñoom ñoom ñoom toppkat yi yooyu ñaan rabbana yow borom sunu ah waaye ñu daal bëgg naa réew mi ñu yow yàlla ñu ngi ñu ñu ñu réew faati ñu jox leen naa zabar mbugal def am nga luy ful de bon nag mbugal mi ñuy jox ñëpp mbugal mi yéen jox yàlla na leen ko jox ñoom juble ko seen kaw de <coughs> ndax ñu réew mi leen naa ci leen naa ci safara de xaala wax yàlla na leen yëkkal leen ak ñi nekk rek ku nekk ci yéen <coughs> ak ñi nekk rek ci yéen def ndax cër de kenn ku nekk ci yéen dana jël cëram ci safara du wàññi dara wala que fi nekk laa taxaw mun a xam tuddee loolu waaye li fi nekk rek yéen xamu leen mooy xala xew de yàlla tëral na àtteem ñii lay def nii ñii lay defee nii ñii safara lañ jëm safara juróom yëpp danañ ko dëkk ba ku nekk ak sa déedéet ak sa déedéet bu ko defee nag ñi nga ne yow yaa ma safara nga dugg safara yow nag la yàlla yokk yokkal mu wër yow nag déedéet loolu mu ci de yéen ñëpp safara ngeen nekk am ci rek amul yaa ma dugal amul dugaloon wax kaale wax lu daaw ñu topp seen ña sang ya lii wax daaw ñu leen toppoon fa maa kaanu lakum ñeel leen alee naa ci ñun ñu fadlin ci loolu de ñun de amul dara loo xam ne war nañ leen ko defar te yéen tamit amul leen dara loo xam ne gën a yéen ñu ko ba yàlla nar ñu jox mu ñaari yoon yéen ñu jox leen ko benn te gën a yéen ñu ko ñun ñëpp ñoo bokkoon ànd nekk ay yéefar ñun ñëpp ñoo àndoon ku nekk di dëgër sa borom ci di nga nekk bon nag amul leen lu lu ñu yàlla bi euh, euh, fuural yéen ni yéen ñu ko wàññi de ci loolu lañ nekk ñoom dëkkuloo nag ca ca at ca safara ñoom mu ko seen seen biir ñoom ñoo ko ñoo ko dëkkuloo te de buur ne leen fa ñu ko moslaan alazaaba mu wal ma dinaa ko tëdd ca sabab si da nekkoon dinaa ko gëm ca da nekkoon teg su mu leen fànku ci ay bàkkaar de ak wéddi yàlla safara ngi noonu dugg leen mos leen safara te kenn du leen ci génne de te yéen a ko fàggu leen seen bopp ba nekk démb fi àddina àddina de الذين نكثوا يكذبون منه بآياتنا في القرآن سنة واستكبروا تجويبه في بآياتنا في كم تنشي كارت سنة واستكبروا تجويبه عنها ورزق بغدنكو لا تفتح بيت غدي loolu mu yaa dana boobu samaay bunti asamaan de ñu nga xam ne dinañ yàlla ba mu jeex yéen ñoom ak ba mu jeex yéen gëmuñ alxuraan gëmuñ yàlla yàlla mu ne ñu man yàlla du ma leen ubbil bunti asamaan de boo xamee ne ñoom jullit ñi bu ñuy dee seen seen loxo yi yàlla daf koy ubbil daf koy mu dem ci kaw asamaan xéefar yi nag seen loxo yi duñ ko safara rek dañ ko yóbbu moom mu ne du leen ubbil bunti asamaan de seen loxo yi duñ yegg ci kaw dem ci suuf rek wala yëpp lu na xalaat ñu jëlee te ñoom ñuy tam दिन दुखरा जमे है तो ये दिन दुखरा जमे रे हत्या ये नहीं है बाबा का कारण से एक जमुन दिन कि समर के आते शिवन बने पुसे मुझे है तो ये दिन दुखरा जमे हो फेक दिन है मंत्र दिन शिवन बने पुसे बो बो बो बो बोले रे मंत्र बोले तब तो ये फर मंत्र दिन हो मंत्र दुखरा जमे रे मिसाल मुझे याद दिया हुआ वाह मुझे दिन किसी ñun comme ay dama dama naka la gileem di duggee ci bën bën a puusa loolu xamuñ ko ba tax na sax ay lay lay fii ak ñeneen ñi ñu ngi ciy dëgg di reetaan di soxla yàlla xuraan di reetaan di mokki yàlla ndax laay ndax baat bi xataa yéen da ngeen fii sa mil xëyaate mu ne du ngeen dugg aljanna mukk feeg gileem dugg ci bën bën a puusa bën bën a puusa loolu léeb la ak risaal pour walla ne xéefar bi loolu la sori aljanna xéefar du dugg aljanna mukk mukk mukk ndax def nañ ci def nañ loo xam ne xas na leen dugal safara buñ fa duggee li leen yàlla di wax mooy xaali diina fiha abadan dañ fay yoo daf fay dañ fay dóor bu ko defee nag ah, ne comme que jigéen mënta dugg ci ban banu pusa xéefar itam di dugg aljanna de loolu la loolu la Eh, te te te ku ne xam ne nag gileem mënta dugg ci bët ba di poussé de waaye boo demee suufiyànke yi ñoom am nañ neneen ñu waxtaanee ñu ne doomu aadama dafa rëy ci boppam foog boppam ne àgg na fu nekk doomu aadama ci boppam rek ak ak ak jikkoom ak soppandikuwaayam ak yëg-yëgam dafa rëy ci boppam ba am ni gileem su ko defee nag su fekkee bëgg ngaa yar sa bopp gëlëm googu nga xam ne àggal nga ci sa bopp te doonoo ko fexeel ba yar mu nekk nit de su ko defee nag dama dama du commencé nag di xeexal boppam di yar boppam ba yëg ne doole gëlëm googu nga xam ne nekkoon na ko ba muy nekk ci réer doole doole gëlëm googu ñu wàññeeku de mu ngi nekk nit koo xam ne eh, lu nekk ba sew na eh, yëgam yëgam sew na sew sew sew ba nga xam ne mën naa mën naa mën naa jàpp lu nekk am na ñu am noonu ñu àgg noonu sawar nañ seen yëg sawar nañ seen yëg te seen yëg moom ba nga xam ne sew na ba mun a dugg sax ci lu gën ci borom sunu ci dëgg de yàlla indil na leen ay yonent yoo xam ne dañuy ñëwoon muy indil leen dëgg mu ñan war topp ñoom ñëpp ngeen weddi leen wan te woyof leen nag ah laqad jaa'atkum rasuulun rabbinaa yonent boobu suñu bil haqq ci dëgg ñoom ñu ñu mooy ñi nga xam ne gëm ko kon ñu ci ñu ñu ci doon sànq ñooñu gëm nañ ñooñu ci de bu ko defee nag ñooñu ñu leen di waxal loolu yooyu daal jar na urustumuuhaa doon nga wax ko de bimaa kuntum ca sabab si da ngeen nekkoon taaba ñu ko de ba ko defee ngoo di ne loolu yéen yàlla di wax ñu jullit bu ñu duggee aljanna ba pare yàlla oo leen leen aljanna ngoo yéen a ko moom doonu yoo naa leen ko ci seeni borom naka leen koy doonu yooyee xéefar bu xéefar bu nekk rek amoon na cëram ca aljanna waaye su fekkee dana ci kéefaram nag place booba nga xam ne moom moo doon am ci aljanna benn julli daf koy doon si moom su ko defee ñoom ñooy benn julli ñi dugg aljanna ñooy benn place yéefar yi nga xam ne amoon ñu ko ci aljanna de mu ne aljanna ngoo yàlla nee na may naa leen ko bi maa kuntum ca sabab si la ngeen nekkoon taamaluuna di jëf ko de yàlla moo leen may aljanna ji ci lan ci li ngeen doon jëf de yonent ne sallallahu alayhi wa sallam laa yadxulu ahadukum aljannata illa bi rahmatin min allah kenn yàlla rek mooy dugal nit aljanna lu mën di am doomu aadama te liggéey lu ko àggal ci teraanga yàlla ñu kawe ñu def amul kattanam amul xelam amul muñam ñu néew ñoo koy def waaye ñu koy def sax ndax mat na da nga xam ne noonu dëppoo ak péeb yàlla la ak ak ak sàkkute yàlla loolu mënuñ ko mënuñ ko def donc doomu aadama mënta liggéey moos digganteem ak teraanga yooyu mënta liggéey ñu ko ci àggali def di ko ci àggali yépp mooy yërmande yàlla yonent ni yërmande yàlla rek moo fay àgg ni jaam yàlla ñu ne ko ba ci yow sax mu ne ba ci man sax lu dul yàlla muur ma yërmandeem rek bu ma yàlla muuree yërmandeem ni mu koy muuree jullit ñëpp danañ àgg ci àjjana waaye nag su fekkee suñ ay liggéey eh, suñ liggéey yi bopp rek dañ yaakaar am na suñ liggéey yi ban moo ci mat mat boo xam ne mat nag bu mat sëkk ba dëppoo leeraayu pay booba ak setaayu pay booba ak ak ak kawaayu pay boobu loolu bon nag su fekkee yàlla wax na ne ah, bu ma kuntum taamaluuna mooy ne jëf itam mënta ñàkk ndax itam nit bu bëggee dara jëm ci na jëf rek jëm ca mat na matut yow sa yoon nekku ci def nga rek li nga xam ne moom la la yàlla sant julli jot na tisbaar jot na nodd nañ jàpp nga dem nga ca jumaa ja xamoo ndax njàpp ni toj na te yëgoo ko te loolu mën naa am loolu mën naa am jàpp ne toj na te yow nga foog ne yaa jàpp nga dem julli julli nga matut ndax nit mën naa jàpp ba pare toog ay ndox génn ci ci moom te du ko yëg du ko yëg bu ko defee loolu njàppam toj na nit mën naa jàpp ba pare laal loo xam ne e, e, dafay toj njàpp mu laal ko yooyu e, itam yu bëree bëri mën nañoo toj sa njàpp fekk duggagoo ci julli gi nga dugg ci julli gi foo ne yaa ngi ci jullee laab te duggoo ci laab sa jàpp toj na te bu ko defee nag moo tax yoonu sene na yow yaa boo jullee ba pare na nga ñaan yow yàlla yàlla ma matalal li nga xam ne mënuma koo mottali yàlla nag ma matalal li nga xam ne man mënuma koo mottali rek te yàlla nag ma musal ci bàkkaar yi nga xam yàlla dama musal ci samay bàkkaar loolu la yonent wax gannaaw julli na ko nit di wax gannaaw julli ndax xamul ndax julli gi mat na wala déet ndax xamul ndax bu na ko njàpp wala bu duggee ko njàpp de mu ne nag jullit ñooñu loolu loolu moo leen di mu ne kenn du dem àjjana wut ci sa yërmande yàlla rek yàlla ñu yàlla yërëm ba yóbbu naa àjjana ñun ñëpp mu ne koo xam ne nag ah, waaye nag bu tere mu nga liggéey ndax lan yonent nee na kullun muyassarun limaa xuliqa la képp koo xam ne nar eh, eh, eh, ngaa dem àjjana lii yóbbu àjjana yàlla daf la koy yombalal bu ko defee nga ne nga nekk ci te doo ko yëg te doo te doo ko jafe ndax gis nga lu gën a métti julli lu gën a jafe julli amul ci àddina lu jafe jafe jafe jafe aa ah, moo tax ah, ah, julli bu ko ko yàlla jàppandalul toon ak ni julli yi jege juróomi julli si benn bés seetal bu ko yàlla jàppandalul toon ndax mën nga ko yàlla déet yëpp yàlla la ko jàppandal rek nga mën ko ki yàlla wut ci jàppandaloo ko yow jotewoo moom dara diggante ma yàlla la yow jotewoo moom dara nit ak nit rek ngeen di jàppalante ngeen jàppalante ci jeex na waaye loolu lépp nga xam ne moom mënu ko yàlla moo ko ko xañ mënu ko moo tax itam ah, <coughs> ñu ñu moo tax ba jëmee ba àdduna la ñu sant yàlla de ndax li yëpp ci ndimbalu yàlla rek la ajana nag ah, may jamam ci bëgg-bëggam moom yàlla waaye yàlla wax na fii ne aljanna ngoo may naa leen ko ci la ngeen ci la ngeen doon def pour xamal ñu ne def boobu ñuy def dañ ko def rek ndax yàlla ñu ko sant ndax boo defee li la yàlla sant rek dugg nga aljanna déjà ndax yàlla sant na ma def naa sama xol sedd na seetal ñi nga xam ne ñoo oor tey ak ñi nga xam ne ooruñu seetal bu jant sooyee kañ ci ñaari kuréel yi ñooy gën a kontaan ñu oor dëgg-dëgg ñooy gën a bu jant sooyee ñu oor ñooy gën a kontaan ndax dinañ yëg ni def nañ bu baax ba pare ba ba pare ñu ngi toog nag di continuer bokk nit seen àddina bi boo seetal ku oor ak ku oor ak ku oorul rek nga delloo leen bu jant bi sooyee nga gis kii da kontaan te ñu si moom ci kële rek ndax lan ndax sant def naa ko jeex na loolu doy na teraanga waaye nag su fekkee yàlla sant la defoo ko ba pare ba pare am sa làmmiñ réy loolu itam sa yëf de sa la yow kenn mu ne aljanna nga fi waaw e, e. hmm? wa tilkumul jannatu tilkumul jannatu aljanna nga mu bu leen ko sàkkoo yàlla dina leen mooy jaamu yàlla tilkal jannatu allati uristumuha moom la yàlla wax ah bi ma kuntum taamaluuna donc bu ngeen bëggee aljanna jaamu leen yàlla yàlla dina leen ko may yonent nee na ah bu ngeen bëggee aljanna sàkk leen ko ci ànd ak nit ñu baax yi bu ngeen ànd ak nit ñu baax yi man ñu leen a yóbbu aljanna ndax yonent nee na almaru maa man axabba nit ku nekk ki nga ki nga sopp rek mën ngay dëkkat ëllëg ci àllaaxira doon ànd ak nit ñu baax ñi mën naa yóbbu nit aljanna na aljanna nga sàkku leen ko ñu koy sàkkoo mooy nañ ñaan yàlla mu may ñu aljanna yonent mu ne boo boo waxee gannaaw ju dul fajar allahumma inni asaluka aljannata allahumma inni asaluka aljannata allahumma inni asaluka aljannata ñetti yoon aljanna dana wax yow yàlla may ma kii kii bëgg na ma may ma ko soo waxee awuzu billaahi mina naar awuzu billaahi mina naar awuzu billaahi mina naar ñetti yoon safara dana wax yow yàlla soo na kii kii bëggu moom moo ko jegee su ko defee bon ñaan mën naa may nit aljanna mën naa musal nit itam ci safara na nga ragal yàlla itam boo bëggee aljanna ndax yàlla yàlla nee wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa nahaa nafsa anil hawaa fa inna al jannata hiya al mawaa bon loolu dina may aljanna bon aljanna ngoo ku bëgg aljanna ut ko boo ko utee yàlla dina la ko may de te boo gisee borom rek adduna fi mu jaxasoo jaxasoo boo gisee borom aljanna rek da xam ne kii dog na jëm yoonu aljanna de yàlla ñu ko yàlla may ah lakum yàlla wa boo daata hoo ashaabu jannati wa rabbi aljanna asaaba naari wa bi safara ya an qad wajadna ñun di fekk nañu maa waadana la diwe bi ñu ko rabbuna borom sunu xaqat muy aji dëgg rek fële foofa nag bàyyi bi la foofa la puukare yi nekk aljanna yi bu ñu demee ba dugg aljanna danañ taxaw ci benn palanteer seen waa safara yi ne leen ee eh, yéen waaye yéen ndax leen ndax leen yàlla waxoon gis ngeen ko ñun de duñu yàlla waxoon gis nañ ko mooy ñu ngi nii si àjjana de yéen nag ni bu ko defee ñu ko daal ay laaj ak torox toroxal leen rek la waaye xaaruñ ci ne ña nga ñoom jullit ñëpp xam nañ ne ñoo ña nga safara de faral ba jotum ndax ada maa ba ada la dogal na rabbukum borom seen ci mbugal ndax fekk ngeen xaqal mu dëgg ndax li leen yàlla digaloon ne dina leen mbugal ndax fekk ngeen mbugal moom yéen xaaral ñu wax na naam na naam xaaral wax na naam waaw li ñu yàgg déeroon si mbugal yëpp fekk nañ ko de fa azana dal di eh, mu azinun aji yéene joo xam ne ci ci kaw asamaan nga nekk tiim leen ñoom ñaar baynahum diggante seen jullit ñi ak yéefar yi ak ndi ndi tey mbir laanatullaahi soril yàlla yërmandeem ala zaalimiina war na way wéddi yàlla de ñi nga xam ne dañoo wéddi yàlla yoon yi yàlla daf leen di sori yoon naa ne def ko defee xeefar yooyu daf la xam jullit ñi ta dal di dal di se se seqali nekk ci seen àjjana ñoom xeefar yi nekk ci seen mbugal de alladina ñaaña yasudduna danañu fekk nit ñi an sabilillahi yoonu yàlla wala an sabilillahi wala yàlla waaye bu na ñuy sàkku diine yàlla ji ewajan muy luy muy luy njaar ñu bëgg diine yàlla ji diine ji dëng wala ñoom kaas yi ba nawet bi dinañu biir àllaaxira biir àllaaxira ci àllaaxira ñooñu lu yàlla wax si ñoom ñooñu ay ya wa bay na maa nekk na diggante seet nag diggante yéefar yi ak ak jullit ñi xijaabum kiiraay de kiiraay bu rëy kiiraay boo xam ne jaar na diggante yéefar yi ak ak ak jullit ñi yéefar yi déggatuñ jullit ñi jullit ñi dégg yéefar yi de yàlla jaar na seen diggante malaaka yi yéen a yàlla dem leen fële yéen waa safara yi dem leen safara yéen waa aljanna yi dem leen safara dem leen su ko defee nag diggante aljanna ak safara am na fa benn euh, fa fasal benn xijaar benn fasale boo xam diggante aljanna ak safara bu ko defee loolu lu ko waral mooy li ñuy tuddee laaraaf moo am na laaraaf mooy lan mooy barab bi na xam ne nit ñi fay juddu demul aljanna demul safara ndax lan seen jëf ju baax ak seen jëf ju bon méngoo na ba nga xam ne dem nañ te bàyyi boromam mu dem su ko defee nag ñoom dañ leen di defaral lu ñu tuddee laaraaf laaraaf la ñu nekk su ko defee ñu ci diggante safara ak aljanna danañ gis waa aljanna yi danañ gis waa safara yi su ko defee nag yéen ñooy ñan mu ne mooy ñi nga xam ne danañ jaamu yàlla te duñ te duñ respecté seeni wàjjur ñu seen dëkkuwaayaloo ñi nga xam ne danañ jaamu yàlla waaye duñ respecté seen jëkkër seen kërandoo ak jaam boo xam ne waxtu wa jaam bi am nangu nañ la topp yàlla waaye nangu ñoo topp seen sang yi mu ne loolu ñooñu ñooy dëkk foofa ca laalaa eh, eh, na jaamu yàlla ñi ko yàlla wax ne na leen topp na leen topp boo tax yàlla bu waxee jaamu yàlla सेवा यूनिसी लिखते सेल्जरा kapasilikai mosinak waaw voilà sa sa jaam boo xam ne yaa ko wëtal topp la rek la war a def de waaye loolu yëpp nit ñi dund nañ ko waaye laaraaf yaa ngi nekk la ci laaraaf mooy pour ñu leen waxoon jaam aw góor de la laaraaf nag moom aw góoral ca yaari fu na yaari fu na dana ñu xam ku leen képp ci waa aljanna yi ak wa safara yi danañ leen xam bi ci ñoom ci ay mandarga seen def yi nga xam ñi ñi gis waa safara yi ñi leen di xam ñi gis wa aljanna yi ñi leen di xam su ko defee nag dañuy bañ dañuy bañ dem safara ak aljanna lañ bëgg dem de war naa daw ñu xoo ñoom waa laaraaf yooyu asxaabal jannati wala aljanna an ñu bi tey ndépp salaamun mucc aleykum yow nekk ci yéen dañuy gis seen xarit ci biir àjjana eh yow salaamaaleykum eh salaamaaleykum yëpp ñu ngi bëgg a dugg àjjana fekk leen ñu ngi oo seen i xarit yi nga xam ne xam ne ngeen ci àjjana gis leen ci safara ku ci seen rek ñu ngi woote ne ah su ko defee nag buur ne war naa dañu woo sala jëm si wala safara an salaamaaleykum lam yadxuluha xaraftuñu ko dugg bu ñu àjjana ñoom waa laaraaf waaye ñu ngi oo seen xarit yi ngeen xamul ndax ñu dimbale leen de ñoom ñett laa xaratuñu ko waaye te ñoom ma woon waaye yaakaar lañu ci xarafal jan ja xarafal janna ñu ngi bëgg a dugg janna waaye duñ dugg de am nañ yaakaar bu laay ji waxatee rek nga gis ni ñoom ñëpp dugg nañu aljanna de allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam